voilà mbokk yi seetaan SN Xibaar ba tey yéen a ngi ànd ak euh, seen xibaar point com si nga xam ne moom mooy 2829 di festival daaree ko ci di ki ñu jàkkaarloo yaakaar naa xàmmee ngeen ko muy grand père di Babacar moom itam nekk si Madior ak Dior ñu bëri ràññee ko ginnaaw bu ñu la yoo grand sa teewaay fii ak sa diggante ak daaree ko ci loolu ñu si mën euh, tout d'abord may leen remercier ci ci ci dalal bi euh, di leen encourager ndaxte man maa gëm ni lii ñun ñoo ko moom comme ma artiste comédien comme yéen def répétition def théâtre oser créer de def c'est à ah, encourager mais ni encouragé ba ka qui sama sama xarit bokk ci ma a micro euh, caméra a euh, caméra je ko ñaanal ñaanal bi ci barke ngeen rom fi TV toll wala euh, Daara Coach 2 maa leen xam à travers euh, par le biais de Mourou Mbacké qui est un ami bu nekk Coach dégg euh, bi ñuy préparé un festival bi ñu woo ma ma RDV parce que ma rajo bu ñaa laay liggéeyee donc def émission ma publicité ko Boy invité ma franchement mu ne invitation ma neex ndaxte Boy osé nañu festival Bawal dañ ko doon dégg mais osé def festival 48 heures jël plus de 250 membres dinañ jox ñi lekk ñoo ñuy naan c'est à saluer

Bon, allez on organiser festival organiser nous mais mairie bien quoi parce que culture dafa pas qui mairie budget culturel dafa nekk ci mairie budget culturel boobu mi ngi ko jox acteur culturels yi ñu ñu ñu ñu ñu liggéey si liggéey parce que dafa intéressant théâtre mi ngi avance théâtre mi ngi avance mais ci benn côté lay avance donc euh, ci ci ci ci ci euh, création mi ngi avancé ci ci ci ci prestation on voit beaucoup de prestations même boo xoolee tey deux deux mbaa tey li fi jaar ci ay prestations ëpp na quinze ça va que théâtre mi ngi mi ngi mi ngi évolué mi ngi mi ngi avancé troupe yi léegi bari nañu compagnie yi bari nañu ça nit ñi bëgg nañ théâtre waaye amagul xaalis avancement bi ñu gën a soo saatu mooy xaalis xëy dem dafi spectacle am kasewu 500000 artiste comédien mérite na loolu ndax xam nga li may wax xam naa ko dañuy répété ba sonn pour euh, véhicule lu ñu mën a leen rek moo ciy génnee def ay série sénégalais xam ñu mën a créer ay spectacle gars yi star su ñam public mais théâtre mi ngi avancé mais xaalis la moom grand ba ñu ngi lay gis ci série Madior ak Dior nga ànd ak Pikini production euh, ban lu tax moom rek ci téléfilm bi dañ leen ko gën a ràññee waaw euh, Madior Dior laa mujjee def sax boo xoolee naa moo ko boot tourné ci bés bi doon daw DTV Madior Dior bokk ci euh, li ma gën a lancé. parce que série la bu neex bi nga xam te ne sénégal yi bëgg nañ ko ñu jox ma ci rôle bi nga xam ne mënu ko parce que boo xoolee ñu fi dàq joué lu ñàkk Jean Michel Sénégal doo génne ko dàq joué rôle nag Jean Michel. que ci sol de passage Maya am na et tant d' autres ma jox ma rôle bi donc ma essayé ko même mu dee ko sax essayé naa ko mais. rapporté na ma lu bari bari bari bari bu ma duggee Touba sama yaram dafa daw xale yi damay nëbb ba sonn boo taxee beer sax ñu la xàmmee donc cela veut dire que gars yi bëgg nañ maa boor ñu ngi koy sant man Touba moom sama fief la Bawol sama fief la donc xale yi dañ maa bëgg dañ may surtout xale yi en tout cas daal série bi nga wax macha allah euh, di ci gërëm baax Aliou Ndiaye directeur Pikini production

jël ay jeunes comme yéen ngeen di wu def ay interview def ay séddu ko dugal loolu référence la exemple ya soriwul gis nga nit Bawol boo fi nekkee bu rëy jël exemple ci ci Babacar Diakhoumba bu rëy jël exemple ci doomu Bawol ah bu rëy jël exemple ci daare euh, daare initiative lañ def festival dafa metti ma leen di masaw coono mais ñoom rek référence lañu parce que boo jël exemple ba tudd gis daare Kocc 2 exemple lañu doomu doomu Bawol la Euh, ñoo ko moom dëkk bu théâtre amul culture am boobu dëkk du avancé donc ñun nañu sàmm suñu moom donc gëm ko téye ko te bañ a ñàkk fayda li ñu war a jël théâtre nañ ko jël Babacar Diakhoumpa moom j'ai confiance en lui tey yàlla baax na li si kaw raw jaajëf nice na